wàllu politique ak législatif yi gars yi nasaka nocci loolu la xëyee nas yaag nocci ya bari na yum ñu ci leeralal moom l'observateur Amadou Ba parti socialiste AFP ak la gauche ñoo ngi déglu Khalifa Sall nee na ñu it parti démocratique Sénégal ak APR tàllal nañ loxo yi di sa Seck Pastef wan ginnaaw ñooñam yamu àndaloon ci coalition jomay coalition Diomaye président euh, l'observateur wax nañu it immigration clandestine ak. ñi nga xam ne ñoom la seeni mbokk di tukki te duñ déggaat ci dara baaboog ñu leen di indil seeni i néew ni ñu koy dundee Farba Ngom ci xët mu njëkk l'Observateur nee na li ñu ko def def ko ca këram à la limite je m'en foutisme lay nuróol yéen kay bii di ngi ñuy di lisit ne coowal muraay li ci école li fi Ousmane Sonko sulliwaat wunneeti na ci réew mi yii mooy l'observateur xëyee soleil national ñëw ak ñun ci élection législative anticipée yu waram 17 novembre nee na Pastef moo cay dem ak cëggal guyam te jamono jooju ñii ci opposition bi ñoom ñoo ngi nas ay alliance enquête ñëw ak ñun ci alliance yi mu ne jamono ji tàmbali na gaañ ci njëkkante ko ca la ñu nekk Sud Quotidien di ko dëggal jeu d'alliance la bind Walf Quotidien ñëw ak ñun ci coow li Ousmane Sonko sulliwaat ci muuraay li ci école yi enseignement privé catholique loolu la xëyee journal bi di Les Échos nee nañu Déthié Fall xalifa Sall ak Serigne Moustapha si ñoo ngi wàcc lu rëy point ak ci xëy ci waxtaan woowu seq na ko ak Moundiaye Cissé mooy njiital ONG 3D las di ñu xamal Lat Diop mi am lante ak yoon am na yeneen juróom-ñaar yoo xamante ne jiit yoon tey nañ leen jamono ji turbine dikk ak ñun ci lu jege ñaari téeméeri migrants yu ñu fekk ñu faatu gaal ga ñu jëloon gaal gaa feeñ eh, ci waaxi Ndakaaru yi ñoom nag gisee su leen libération dikk ak ñun ci arrestation yi nga xamante ne ji def nañu ko ca euh, observatoire de qualité des services financiers euh, la fa xew moom yéenekaay bi mi ngi ñu koy leeralal le quotidien ñëw ak ñun ci législatif yi ñuy waajal ak yëf yeeg ni mu jaxe jamono jile suuf soit ñëw ak ñun ci mbirum euh, dikk na ak ñun kon ci mbirum. deux kilogrammes or yi nga xamante ne ñeneen dafa waroon a jugee Dakar wala dafa jugee Dakar deux mille vingt et un ngir teere jee Dubaay am na ay laaj yu bari yu ca sampe journal bii di l'info ñëw ak ñun ci euh, déggoo goo xamante ne gis na daal ne euh, dana jafe lool mu am ci diggante waa ATEL ak général euh, Tine Jean Baptiste Tine bés bi le jour ñëw ak ñun ci Sonko yi nga xamante ne ji kon li muy ragal mooy euh, ni ko waa PDS def wala ni ñu def waa ñu def leen ko moo tax mu bëgg a demal boppam ci élection législative yi réew mi quotidien nee nañu njiitu réew Sénégal ba foon di Macky sàll gannaaw bi mu jugee ci réew mi noppi ab diir yëkkati nay kàddu kàddu jëm ci ñaaw la nu ñuy defi militant am kàddu it jëm ci ñaawlu li nga xamante ne ji noonee lañ war la woon ak moom ci defuñu ko lu aju ci reddition des comptes que euh, campagne bi Ba biñ ne yooyu yëpp moom euh, Macky Sall président de la république ba woon wax na ko lii quotidien dañu xamal ne Ousmane Sonko nee na Pastef day demal boppam ci élection législative yi soxlawul coalition Diomaye président journal bi gis ne pari risqué la maanaam dugg na ci loo xam ne lu mën na ko caa am fekk boobu la yéene kay di la mandat moom it élection législative yi la xëyee coalition boo xamante ne nee na mi ngi nasu ci diggante parti démocratique Sénégal ak waa le public nañu muy Senghor di Diouf di Abdoulaye Wade Macky Sall ba ci Diomaye yii ñooy euh, juróomi njiiti réew yi nga xamante ne ji Cheikh Yirim Seck def na taxaw seetlu ci ku ci nekk ak saw doxin ñu jeexale ak wàllu tàggat yaram record dikk nag ñun ci coupe CAF Jaraaf Racing euh, Club d'Abidjan nee na Jaraaf moo duma kon Racing Club d'Abidjan ñetti bal ci dara ba noppi nag ña nga ca phase de groupe yi euh, ci phase de groupe yi kon ca la ñu toll jamono ji Alaaji Babacar